dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi ko di ja xëy di ñu xamal lan ñu fagaru moo gën faju noone la ko wolof njaay waxee waaye tamit li ram sa ñag jëm te boo fa amee kër du baax situation bu doy waar jamono ji moom la Sénégal toll ci lu jëm ci Covid 19 ndax lu toll ci fukk ak ñeent ci ay cas communautaire ni ki démb daat nañu koy gis mën nañoo wax sax ne Covid 19 bi jamono ji nag soo mooy tuulee dina daal di ëppi loxo réewum Sénégal yéenekaay gi mu ñu xamal lan jàngoro ji nag ma ngi gën di yéeg laas yéene kaay moom mu xëy yóbbu ñu diwaanu Pout ci nag commerçante bi nga xamante ni daal moo dëkk jendeer te doon jaay ay lujum ci marché Castor moom nag lu toll ci fukk ak ñett ci ay nit daat na leen wàll doomu jàngoro ji libération yéene kaay ne bu ko wàññi fukk ak juróom-ñeent ci ay nit la wàll maanaam dix-neuf personnes Vox Populi moom tim daal di ñëw yokk sa ne vingt personnes la daal di wàll mooy commerçante bi nga xam ne moo dëkk sa jendeer ca Pout yéene kaay gii da la moom mu xëy xamal nañu nag woppi coronavirus ji mag ñi lay gën a rey mag ñi lay gën a sonal ana lan moo ko waral yéen kay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal nañu docteur Abdoulaye Bousso nii kii démb daat nay wax ne woppi coronavirus ci Sénégal ndaw ñi la gën a dal ci réew mi waaye nag mag ñi la gën a mën a rey bi mbir mi commencé ba léegi lu toll ci fukk ak ñeent ci ay cas grave daat nañ koy am juróom-ñeent ya ñoom ñoo daal di faatu yéen a kaay gii du source am moom mu xëy bu ñu diwaanu Touba hôpital Matlaboul Fawzayni foofee nag jamono ji mbir ma ma ngay gën a jéggi dayoo ndax lu toll ci quarante personnes dañu leen a quarantaine ndax nag personnel ba am na si ñu bëri ñoo xamante ni amee nañu wopp ji yéen gii de la turbine mu ñu xamal lan ñu rëq-rëq yi nag ak li nga xam ne mooy lawal woppi coronavirus ji dara jiituwu si nag marchand ambulant yi nga xam ne ñooy jugee région par région ak moto Jakarta yi xam ne ñoom dafa mel ni yéeguñu lu xew libération yéen a kaay mu mu dikkal ñu ci mafia bi nga xam ne bu ñu ko dakkalul daal en tout cas xeex bi nga xamante ni ak nag liggéey bi waa kër docteur def lépp mooy yàqu ndax cees Mbour Touba Louga Tivaouane Kaolack Nioro Vélingara Sédhiou maanaam gox yi yépp nit ñi ñoo nga fay jaaba jonge di dem te cas yi nga xamante ni moo fa am bu kenn ku nekk toogoon fa nga nekk mbir mi du toll noonu yéen kaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal naa ñu am na ñaari chauffeur yoo xamante ni ñoom amuñu chance ndax daat nañ leen di teg loxo ñoom nag dañu doon xëtt ndigal di jóge Touba di dem Louga ñii jóge Louga Louga di dem Touba jamono ji ñoo ngi ci loxol yoona yéen xam ne daal na fay dugg kaka la maanaam ab nappkat la waaye nag moom fi mu jaar ci boppam moo doy wara ndax jaar na Louga jaar Mbuur jaar Gàmbi doog a dem ba Sédhiou journal bi mu ñu xamal lan ñu en tout lan moo tax mu dem ba foofu yépp te teguñu ko loxo yéen a kaay gii de L'As mu ñu xamal lan ñu ñu bari nag ci askan wi dañu doon wax ne maanaam mën nañoo def test massif dajale sénégalais yu bëree yi defal leen ay test docteur Abdoulaye Bousso nee na loolee du stratégie bu baax bi li mën a am daal mooy diagnostic rapide te léegi tey mu am ci réewum Sénégal yéen kay gi du l'observateur xëy nag dikkal ñu ci picco ak mbaalo gi nga xam ne moo am ci soxna si nga xam ne dafa faatu ca diwaanu Touba ñuy wax ne woppi coronavirus ji moo ko daal di rey am na benn doomam bu tudd daam xuma moom nag daat na koy weddi ba tëdd sa naaj wa nee na yaayam woppi coronavirus ji reyu ko benn yoona taskatu xabaar yi ba ñu laajee Mamadou Dieng mi nga xam ne mooy médecin bu région bu Njaaréem moom nag da nay wax ne ñoom amuñu benn intérêt di wax ne nag woppi coronavirus ji moo ko rey te reyu ko daam xuma ne yaayam daal bu amee woppi coronavirus xanaa hôpital bi ñu ko yóbbu woon fa la ka daal di jëlee Mamadou Dieng loole nag mënut a nekk yéen kaay gi de la témoin moom mu xëy di ñu xamal nañu daal moyens yu baree bare bari ak ay effort yu bari la ñu def ci woppi coronavirus ji mel ni lu fàtte li nga xam ne mooy paludisme en tout cas paludisme li muy rey ci àdduna bi woppi coronavirus ji reyagu ko ndax ci rapport OMS bu 2019 bi lu toll ci quatre cent cinq mille personnes yoo xamante ni faatu nañ si maanaam ñeenti téeméeri junni ci ay nit faatu nañ ci paludisme ci atum deux mille dix su dee sax atum bi lu toll si juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom ci ay junni nit faatu nañ ci paludisme maanaam cinq cent quatre vingt cinq mille personnes te xam ngeen lii nii woppi coronavirus rey ko ci àdduna bi kon lan moo tax ñu bëgg a jël xeex bi yépp jëmale ko ci Covid dix neuf te fekk paludisme li muy faagaagal ci askan wi Covid dix neuf defu rawatina réew mi di. réewum Sénégal yéenekaay gii de L'As mu xëy dikkal ñu ci scandale bi nga xam ne moo am ci ni ñu jëndee ceeb bi ndax nag prix yi nga xamante ni moom la ñu homologué woon maanaam daal di koy tënk ci lu toll ci deux cent quarante mille tonnes bi riz brisé non parfumé njëg gi nag dañoo gis ne dafa daal di yokku ndax ñoo ngi ko jënde lu toll ci deux cent soixante quinze mille francs yéenekaay gi nag daal di dikk ne njombe nag mënul ta paase loolu yéenekaay gi di Sud Quotidien mu ñu xam ñu séddaleeg dund gi tey jii nag lay daal di doora ba tey ci biir loolu journal bi yóbbu ñu diwaanu Médina Gounass As mu ñu xamal naan ñu ñoom nag seen jàkke yi ak seen jumaa yi ba léegi ni ñoo ko ubbi diw amal nag waxtu juróom yi ak nag juma ji ndax nag ñoom dañoo jàpp daal ne nu ñoo ñàkk bañ a jaamu yàlla si jumaa yi ki nga xam ne nag mooy xalifa ba di ceex Ceerno Tijaan ba moom nag ci njiitam yéen kaay gi nee nag ñi nga xam ne ñooy autorité yi ñoom wax ñu ba sonn waaye nag ñoom daal seen fula ak seen fayda la ñu am di ubbi seeni jumaa di julli ajuma yéen kaay gi di waa Grand Place mu ñu nag ci jafeñ-jafeñ yi xam ne moo am diggante waa ministère de la santé ak professeur Moussa Seydi ndax moom Moussa Seydi fan yi ñu génn ginnaaw ab tukkib nemmeeku boo xam ne def na ko se sa diiwaanu Ziguinchor da doon wax ne hôpitaux yi fi nekk daal amul yenn jumtukaay kaddu yooyu nag naqari waa ministère bi ñu dénk wàllum wér-gi-yaram gi ba sax docteur Aliou Waly Diouf directeur cabinet Abdoulaye Diouf Sarr daal di ci indi tontu daal di wax ne am na wax yoo xamante ni sunu biir la xamal naan ñu bëri na ay mbër yoo xamante ni ñoom bu ñu soñoon jamono ji Aliou Sarr daal di nag tekk ndombal tànkam ci bopp CNG ku si mel ni Yaxya Joob Yékini Bombardier Gris Bordeaux ak Boy Kayre waaye nag surnal bi di sunu lamb nee na Aliou Sarr moom fa mu ngoyoon ba léegi ni daal ma nga fa tee